كم سقاني من شراب بكأس من مدام رقرقت بالدنان هاج شوقي تارسات المعاني فارقتها def ko comme robinet buy sotti di bëbb xanaa yow mi koy taggadee war ngaa mos dara ci fay bu boobu yonent bi di sotti mu ne ah kay kam saqaani min sharabin bi kësin min mudaamin ruquriqat bi dinaani mu ne kam saqaani bari na bu ma nàndalee moom yonent bi min sharabin tukkee ci ak naan naan rek nag la wax mu nàndalee ma ko bi kësin ci ab kaas naan nga mim mu daa min mu ngi jóge ci sàngara mm-hmm. sàngara bii de mm-hmm. sàngara boo xam ne ruquriqat njareef na ko mm-hmm. raq-raqa sharab bu ko arab mooy soow mi wala lu mel ni moom fatoon ba ne dang nga njar ko ba mën koo naan ñu ne raq-raqa sharab ruquriqat njareef na ko njar bi dinaani ci ay damsaan zirik zirik dinaan jamu jamu dannun dannun bi fathi daali dann mooy damsaan damsaan mooy butéel boobu nga xam ne foofu la def sàngara bi waaw ah. léegi nag tudd na naan tudd na kaas tudd na sàngara tudd na njar tudd na defukaayu sàngara waaye yim tudd nii yëpp tur rekk a leen booleeg yi nga xam sàngara bi lan la bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi jëlal fële ca wali yàlla wala koy firee taataytum ku'uusan min mudaamin min maciinin min araadi dikri axlaamin raxiiqin min dinaanin gaa yi dañuy nekk ci di tudd yonent bi ak di ko tagg loolu mooy zikri bi hmm. zikri boobu mooy sotti ci ñoom sàngara manam moy taxaw taxaway kaas bi nga xamne mom lañuy dekk ñu soti leen ci sàngara ba sàngara bu moy bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bii nak mbole aarifuuna billahi ñi ci mos yëpp wax nañ bi mom kenn du ko mos nut mënta nekk boo mosee moom faaw nga nga jabbatu rek waaw mënoo wax a ba wax li nga mos lu doon waaye da nga jabbatu rek bu ngeen demee ci xamariya bu ibnul faarib xasidaam boobu sharibna ala dikri alxabibi mudaamatan sakir naa biha min qabli an yuxlaqal kar mu ne naan nañ ci tudd turu suñ soppee bi sàngara woo xam ne ca lañ màndee te boobu yàlla bindugul sàngara <laughs> seetal loolu dem na ci xamariya boobu bay ndokke ndeysaan mag ñi dañ ko daan dugal ci maaw yi bu ñuy tudd yàlla buñ ko loolu la buñ ko daan def foofu popo dana ay waay bu ko wàkku ci yi daan wëy idée boobu ñu daan wax ba dugal ci eh, hani an li dayri kam sakiru biha Ibnul Faari mu ne maa ngi ndokkeel ahlu ahlu dayri ab kuréel leen ci wàllu yàlla yi mooy kuréel gi nga xam ne ñooy ndonol yeneen ci yàlla Aysa te doon ay Muhammad yi nag ñooñu ñooy ahlu dayri yi nga xam ne ñoom ñooy ndono yeneen ci yàlla Aysa te doon Muhammad yi maanaam ba léegi ñu ngi fii ci njotaay bi am na ci wali woo gis boo mën a gis ci xeetu yonent bi rek am na ci ndëggul yonent bu mu nekk wuli wi day nek musa wi yul maqam moy dekk ndonol yonent yàlla musa ba pare muhammadi yul umma bu ko defé nak wuli bobu mu'jizat ya don feñ ci yonent yàlla musa moy karama yi feñ ci mom na musa don dundé nam nekkee won ku fitna nitu fitna nit ku c'est la même chose kullu waliyin ala qadami nabiyyi amna wuli wali xamne nak mom da fay nek yusuf wi yul maqam wala wow ñëpp koy bëgg bayra ba maari taar ba foo ko gis ànd ak cërëb yàlla ba nag ba pare mu bokk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na koo xam ne daaw daaw dijul maqaam lay doon kooku foo ko fekk borom xilaafa lay doon noonu nga koy toppee koo xam ne nag dafay nekk isa wiyul maqaam léegi nag garaat yooyu dañuy toppante bi ci sës garaatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy isa wi parce que moom moo ci moo ci moo ci mujj ci yonent yi avant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag wali yooyu nekk aysawiyul maqaam te bokk ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu la ñuy wax ahlu dayri ñooñu ay mandikat la ñuy doon waxuma mandikat yii de ay mandikat la ñuy doon mooy lan daraay àdduna dañuy jeex takk takk ci yàlla comme Seydina Isa amu fi soxna amu fi kër amul fi oto àdduna ak li muy mel ak moom na mel ci yàlla yëpp yëpp yëpp yëpp benn mbaam la fi am butéel bu muy def ndox yedd bi muy dàqee mbaam mi amul kër amul soxna amul sax bàyyi yaay rek la am rafle wu ci lu dul yàllaay kese kese kese jaf takk ci yàlla mënta gis dara foo fekk insa wiyul maqaam dafay bëri ay karaama lu nekk ca kat boo moytuwul léegi tey nit ñi jaawale kook yàlla gisoo Seydina Isa li ko dal ñooñu nag dañuy naan dañuy naan dañuy naan ci mbuut mii ñuy jabatu rek te mënuñ ko tudd mukk ba màndi mu leen di ndokkeel ne kam sakiru biha ëhli dayre la gaa yi ñoo yàq rek di wax ëhli dayre la waaw kam sakiru biha waaw mu ne bari na buñ na buñ ci sàngara boobu dit te mandi ga sax du dañoo naan de nee na walam yashrabu minha walakinnahum hammu ñoom naanuñ sax dañoo ñëw ba bëggoon naan rek man di sàngara bii muy melal doon naan de da nga naan dama am intention naan ko rek man di mu ngi Thiès. Hmm. parce que dina hmm. hmm. soo dugg see. bu la xeeñee nga miir. allahu akbar xam nga loolu firi na ko. waaw nee na xëy an li ëhli dayri maa ngi ndokkeel ëhlu dayri. kam bi biha yàgg nañoo mandi ci sàngara woowu nee na walam yashrabu minha te naanuñ ca kat walakinnahum hëmmu dañoo yitte woon naan rek mandi. sàngara boo xam ne da koy yitti woon naa rek mandi nu ibnul farid nag nu ne dana ko tagee sàngara wu jabbatu na ba sonn waaye waxut lan la de dem na ba naan ku dund ba dee te mandi woo ci tàggeel sa bopp yow dee nga gëm nit sàngara boobu ban <laughs> ah bëggal yonent bi rek te pourtant ñu ngi koy naan ñu ngi koy naan de ñu koy naanee ci jawharatul kamal de waaw mm-hmm. ah. mm-hmm. mm-hmm. ñu koy naalee ci jawharatul kamal am na ñetti aynu yu fa nekk. Hmm. bu ci nekk ndab de. <laughs> waaw yàgg ci rek. <laughs> maam Khalifa nag xamariya boobu moom it da ci kii lim ci wax sax dafa ëpp. moom xamariya bi moom lim ci wax mu ni sakirtu wamal xamrul muattiqu shurbuna dégg nga de nee na mandina waaye nee na du sàngara piir bii ngeen xam mooma mandiloo de walakin bi awsaafi nabii muhammadu image yu yonent yàlla mohammed yi may feeñu chaque instant image bu ñëw du bokk ak morom lool moma mandilo ma màndiloo bi awsaafi nabi Muhammad yi ca daali mu ci mu ci biir uqud ah mu ne kam saqaani bëri na ba man nàndalee moom yonent bi min sharabin tukkee ci ak naan mu nandalee ma ko bi sin ci ab kaas hmm. min mu daa min bu bàyyeekoo ci sàngara hmm. boo xam ne ruq-ruqat njareef na ko hmm. bit dinaa ni ci ay damsaan léegi nag lan mooy sharab bi lan mooy naan gi lan mooy kësi bi lan mooy sàngara bi lan mooy jëmmi njar gi njar sàngara bi lan mooy damsaan gi mooy bouteille bi ñuy def sàngara bi duñ ko wax dañ koy mos waaw bu ngeen jàngee xamariye bu Ibnul Farid rek da ngeen dégg li ma wax Ibnul Farid dana dem ba naan sàngara bi nee na nee na bu la neexee nga naan noonu sànga njar bu la neexee nga njar loo ci def mandi <laughs> loo ci def mandi waaw te lii yëpp mbóot la rek waaw waaye daal tudd na fa ay mbir léegi nag yii moom gaa yi dem di ñoo ñooy mën a firi bayit bii ñoo lay wax jëmmi naan gi lan la kaas bi lan la sàngara bi lan la njar gi njar sàngara gi lan la daam saan bi mooy bouteille biñ denc sàngara bi lan la waaye daal nee na yonent bi salaa salaam naan yàgg na ma ko nandal waxut nandal na ma rek kam saqaanii hani an li ahli dayri kam sakiru biha ña ibnul farid di ndokkeel ci naan gu bari guñ yàgg di naan moom ci ñooñ la bokk moo tax mu ne kam saqaanii min sharabin bi kasi léegi nag bay yooyu ma doon wax ci wali yàlla mm-hmm. képp ku bootu ci Seydi Ahmad Tijaani matal chartaay tariqaam góorgóorlu ci ci géewu wasifa yi la la ko Cheikh Tidiane di nàndale maam xalifa mu ne bu ngeen lalee malaan bi di wasifa yëgu ko waaye kaas yi ñuy wax yéen a ngi koy joxante seen diggante kon yéen a ngi koy naan sax te yëgu leen taa ku uusan yéen a ngi joxante ay kaas yoo xam ne bàyyil xel baat yi ku uusan muy kë si bi min mu daamin muy bàyyi ko ci sàngara min mainin sàngara boo bàyyi ko ci ab sewnde nag mayin boobu mooy ni yooyu muy tudd ci jawhara hmm. araadi zikri te nee sew ne boobu mu ngi bàyyi ko ci ay toolu dër yaa moom géew di tudd yàlla la ahla sàngara boobu moo gën a neex min raxiqin ci sàngaraaw raxiq min dinaani la waaye sàngara bi nag ñu ngi koy jëlee ci daamsaanu yàlla yi <laughs> mooy mooy dinaan bi mu tudd nii daamsaan mooy butéel bi ñuy def sàngara nee na daamsaan bi du nit di defar ca yàlla kon kës bi ca yàlla sax xamru bi demeen ba ba muy kam saqaani min sharabin bi ka'sin min mudaamin ruqriqat bi dinaani nee na nag Cheikh Tidiane bu nàndalee nag ba gaañu màndi ñëpp la nàndal nag waaw léegi nag ñi nga xam ne dañoo naan ba màndi te faruñoog moom ci lu feeñ bu ñu màndee rek dañuy commencé nag di waxtu ku ci nekk naan diwo ma nàndal diwo ma nàndal ba affaire yi takkar naa si moom xalifa mu ne yëgu leen lu xew de cheikh nàndal ba ngeen màndi xàmmeetu ko nag سقاكم وارتويتم أو دعيتم سقي كل القوم نعم. سقاكم نندل نلن موم أحمد التجاني وارتويتم جن ماندي aw daaytum mujj ngeen nag di woote saq ya kullil qawmi nandal ak bépp waaye yàlla ku ci yëkk naan diw sàngam diw sàngam la diw sàngam la maam xalifa mu ne daaw ankum bi waaye baleen wax ji ationa bi fadlillah loolu mooy xijaab bi noonu lay demee moom kay dafa am ñu kiiraay gi ñu ko yàlla di dindi li ñu gis ko jëhratan bu ngeen demee ci kashful xijaab ci bopp kashful xijaab benn wali bu bokk ci tariq achadili mu ngi wax mu ne man nii bu tëbb bukki di bàyyeekoo ci Seydi Ahmed Tidiane di ñëw ci moom dama ko gis yàq satan léegi bu fekkee xijaab boobu dafa nekk nag boo naanee bare rek nga ne jërëjëf diw waaw man am nga ci xam nga nu mel patron bi moo yor affaire yi ñun ñooy njaboot gi ku ñëw Mawla yow sa ñaata dépasse nga fay soxla nga naa ah, centaine de personnes ñu ngi xam naa bu ma doon am euh, cent mille par jour dara ma mat dépasse mu signé yow ñaata ngay soxla Ibrahima nga ne man vingt cinq mille par jour yow ñaata nga ne man dix mille par jour yow ñaata yow nga ne milliard par jour jërëjëf bari ci <laughs> waaw xam nga ku ne da nga indi sa kër di root. waaw dañoo mos a toog ci benn néeg maa ngi <laughs> ci lu benn mbokk séeréer bu neex bu tudd Jegaan Jegaan Seen. Jegaan. muy werante naan de Guiers. Hmm. Lac de Guiers Lac de Guiers Mouhamed na ko fu mu ne mu ne ko mi ngi Ndakaaru. Hmm. mi ngi nan ci Lac de bi mu juddoo ba am juróom fukki at xamul ne Lac de Guiers a ngi Louga pour mu ngi Dakar dégg nga de léegi bam patron bi laajee ba kenn ku nekk wax li lay doy ci dépasse mu yëkkati ko jox la moom yow la am ak affaire de sa kër amut ak ñoom affaire nga dem soxna si xëy na sama nijaay dépasse bi nga compte joxe ko kay mais ni yaa ci nekk nag soxna si dem marché dugg ceeb bu tooy xepp togg ba mu baax ñëw ture ture yi wër xale yi lekk ba seen biir fees dëgg dëgg nag sañ nañoo samp ndënd seen kër tëgg fecc suñ bàyyi fi neex ab ceeb moo fi dàq ab ceeb suñ bàyyi nangam waaye yaa koy wax waaye sa bàyyi du ko wax de léegi <laughs> wax ji bu baax noonu rek waaw ah, noonu rek la loolu moo tax du yenn wax yi du garaaw du yàq sax yàlla xam na ko waaw hmm? waaye nag bu ko kilifa ga waxee ñu rëq ndiggam kooku moom du dañ mukk waaye fii maam xalifa moom naanam bi yonent bi la ko jox direct xam nga wax na Cheikh Tidiane yi ni mu ko nandal wa min safa i ku uusi cheikh dama bëgg ngeen bàyyi bàyyi beeg sàngara beeg nangam nangam wa min asqa wa usqi saxaabi xaysu ma qaddal nee na ci kaasu mbóoti Seydi Ahmad Tidiane moom di suñu naanu waaye laa naanee man xalifa ba màndi ba ma man naanee ba màndi man dal samay saxaaba mooy samay taalibi ak fuñ man di nekk ndax màndi nañu wala déet ah boo leen joxee te li nga leen jox ci sàngara doyut ñu mos rek mu jeex duñ màndi mu ne li dañoo naan ba màndi koo ci gis ñoom mu ngi kayang kayang tara saxaabiya sakra kon kay mandi gi mandi gi yëpp mahabba gi la tara sahabiya sakara mim lahum min a sirri nahlun ba'dahu aqil sama eh, ay taalibi yëpp ko ci gis rek mu ngi mandi ngir mahabba googu mu am ci Seydi Ahmad Tijaani am ko ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am ko ci rabbul izzati wal jabaru bëgg giñ bëgg yàlla bëgg ko yonent bëgg Seydi Ahmad Tijaani moo tax ko ci gis ci ñoom mu ngi mandi waaye ba ñu mandee ci cofeel gi tamit sédd nañ leen ci mbóot mbóotum yàlla mi lu doy sëkk ba kenn ku nekk am na ci naan gu njëkk am na ci naanug ñaareel naan gu njëkk gi mooy mosaale gi aywa naanug ñaareel gi nag mooy bi mu amee wusuul naan gi ñu ko naandal nga xam ne kooku moo koy jax albaqaau min baadil vanaa'i kooku moo waral lahu min sirri nahlun baadahu atal lépp lu amul seede baaxul loolu bi mu ko waxee mm-hmm. la ko mawlaaye Sidi Ahmed Sukayriju firndeel seede ko dëggal ko amna ci benn qasida boo xam ne mu ngi ciy tagg alxaaji Mouhamed Khalifa di ci tudd lenn ci ay mbiram wax na ko fa ne waxuma say taalibe waaye sa mbooleem ay soppe koo ci gis rek nàndal nga ko ba màndi te la nga ko nàndal mooy sirrul masuun secret bi yàlla bu ñoŋal boobu nga xam ne wëliyu yàlla yi dañuy def nu ne pour mos ko yow non seulement mos nga ko mhm. waaye nandal nga ko sa mboolem ay soppe te ba nga leen koy nandal nàndaloo leen ko rek ci ay kaas waaye yaa ngi leen ko nandalee ci ay karaaf waaw ci ay karaaf nga xam ne mooy ëpp kaas mhm. fa saqaa ahibatahu bi taxqiqin min sirril masuuni bi ak akbaril kiidaani mhm. naan gaangu képp ku ko mosoon naan nag ci wëliyu yàlla yi jabbatu nga allahu akbar moo tax sàngara bi neexuti firi waaye boo ko toppee ba topp ko mahabba gi mbóot bi sirru bi mahabba gi foofu lay nekk waaye fii ma ne comme wax na loolu yëpp ci Cheikh Tidiane waaye fii naan gi da ko yóbbu direct ci yonent bi loolu moo garaaw ana ana Seydi Ahmad Tidiane moom fii moom maam xalifa dafa dem direct ci yonent bi kam saqaanii min sharabin bi ka'sin waaw loolu dinaa leen ko firil ba mu leer naññi léegi moom nag mooy firi kaas bi bu ma firee kaas boo ba pare laa leen di wax naan gi naka la naka la demee ak yonent kon bayit bi mooy kam saqaani bari na ba ma nandalee moom yonent bi min sharabin ak naan bi kësin ci ab kaas moo xam kaas ba lan la min mu daa min bu bàyyi ko ci sàngara naan nga ci sàngara la bàyyi ko ruq riqat boo xam ne njareef na ko bit dinaani ci ay daam saan mooy defukaayu sàngara kaksu sirrin syurabuha fi sururin hmm. wa mbisatin ya lahum baitul qasir ya bangku mune kaksu sirrin kas ba mumbut la kas bo bu yonin tibidi mandi du bingan kamde sekere la hmm. ban sekere la sekere binyom ibn farid doan nandi chalit nyom halay dihon nandi jakaso mune bire nyom de nyom kan nahan handak sago nyom hmm. kaksu sirrin kasu kamne dañuy faral nag di wax sharabuha waaye yàq la shuraabuha la jamoo shaarib naan mooy shaarib boo ne shuraab mooy ay naankat kësu sirrin kaasu mbóot la boo xam ne shuraabuha ay naankatam fii sururin fuñ toll ñu ngi ci mbégte waaw akbar wan bisaatin ak ak tàllalu mooy ak yaatu duñ xab du mukk mooy dañuy xàppi rek ñoom fa leen fekk dañuy muñ rek wan bisaatin seen poosé bu fa dërëm nekkut ñoom dañuy xàppi rek xàppi mooy imbisaat imbisaat mooy xàppi wan bisaatun ak ak ak ak tàllalu mm-hmm. ubbeeku wata haanin ak ak ndokkeel te koo ci gis nag mu ngay ndokkeel morom ma ndax lañ mos ku ci naan sa maa ngi lay ndokkeel ci cafka gi maa ngi lay ndokkeel ci njafka gi maa ngi lay ndokkeel ci caf gi maam xalifa mu ne yaa lahum woonaa kéemtaan ñeel leen ñoom naankat yooyu maa ngi leen di yéem waaw moom kaas boobu noonu bu ca war a doon cëram kaasu mbóot boobu nga xam ne wëy naanam Nan yi koy naan yëpp foo leen fekk ñu ngi ñu ngi bég ñu ngi tàllalu ñu ngi ndokkelante ba mu leen di yéem mu ne qad udirat kësuha bi yamini bayna qawmi man saqaahum saqaani qad udirat wëraleef na suha kaasu mbóot moomu mooy kaasu sàngara bo bi yamini ci sama ndeyjoor man alxaaj ma non seulement naan naa waaye kaas bi léegi sama loxo lañ ko teg <laughs> qad udirat wëraleef que suha kaasam ba moom sàngara soosu gaañi di naan mhm. bi yemi nii ci sama ndeyjoor ba bay na xaw min ma nekk ci diggante gaaye yàlla yi xaw mu foo ko fekk rek mooy gaaye yàlla yi firiwut ay nit déedéet aw gaay rek gaay wa mën na doon gaay jinni mën na doon gaayu nit waaye nag ci istilaaxu suufiya buñ ne alqawmu rek mooy nitu yàlla ya piir ñi ci jiitu ñooy saxaaba yonent bi ulaayka alqawmu xaqan hmm. maam xalifa mu ne bay na xaw min ci diggante gaay yàlla kaas yi di wër di wër sama ndeyjoor bii ma téye ko ah fii nag alxaaji Mouhamed bàkku na nee na gars yi man saqaahum ki leen nandal ñoom ga wëliyu yàlla ya jiitu woon saqaani moo ma nandal moo yonente bi ki nandal ñëpp ma nandal fil direct wax ji rëy xat ujiirat wëraleef na wëndeeleef na ka kaa su xam sàngara booba bi yemi nii ci sama ndeyjoor bi man alxaaji Muhammad bay na qawmin ma nekk ci diggante gaa yi yàlla yi man saqaahum ki leen nandal ñoom gaa yooya saqaani moo ma nandal ki nandal gaa ñi bañ mandi moo ma nandal naanu ma ndesit fas nag wa dee. ndax safaatu boobu. waa léegi xaaral man saqaahum saqaani. léegi lan moo ci am na xaw mii man sa saqaahum saqaani. maa ngi ci diggante gaa yi yàlla yi ki leen nàndal ñoom ñëpp bañ màndi moo ma nàndal kooku mooy kan kooku mooy kan waaw léegi nag loolu li mu amul seede rek baaxut wax ji du wax ju ndaw de. wallaahi bu ko alxaaji Mouhamad Khalifa waxoon. te amul firnde. dana doy waar. waaye dafa am firnde ci dund mashhad moo koy mu ngi ci rasaa ilam yi doxoon digganteem ak Seydou Mawla Ahmad Sakir na ci risaala maam xalifa ci boppam moo ko bind yónnee ko Seydou Ahmad Sakir di wax Seydou Ahmad Sakir ne ko maa ngi lay bëggal ci ne. lettre bi mu mujj yónnee bi muy ñëw. tombee na fi ak xew-xew bu rëy bu fi xew. xew-xew bi mooy lan. li mam khalifa don def ak yonent bi la yàlla wan ay sédé bañ gis ko ñooñu nettali ko loolu nu mu demee ku ñu wax Mouhamadul Lamine doomu Ahmad la Ahmad doomu beddi la beddi mom lañ daan wax hasanu tariqati seutum biñ doon wax Mouhamadul Lamine nak la ben naru gannar bu tuddu Ahmad baban gint mashhad la Ahmad baban seutu sayyidi mukhtar ibnu Baabaana la xam ngeen kan mooy Muxtaar ibnu Baabaana ba Seydi Ahmed Tidiane joxee secret yeeg mbir mi Seydi Mouhamed Al xaafis ca Maroc gannaaw bi Seydi Mouhamed Al xaafis amee ci moom ñaari at jugee ci ajam ga dana ko boo demee bul feeñal sa bopp tànk yàlla di la feeñal la tadhar xata yudhirak allah Seydi Mouhamed Al xaafis ñëw ay dongam dellu si waat ci moom kam jàngalekat la woon day joxe darsu muy jëfandikoo wir daam di naan ay mbóotam toog jàpp ñàmburam di jox gars yi darsu ci digg darsu ba am waaju waaxoo fële ñëw na ko Seydi Mouhamed al Haafis damaa bëgg nga jox ma ci sërite bi nga jëlee Fès mu ne ko ah sërite bi de eh, indi woon ci ay tàndarmaak nangam joxe ay quelques téere fi des mu ne ko déedéet waxuma loolu sërite ba laa wax Mouhamed al Haafis na ko ah lii de fi nekk ci sërite mu ne ko déedéet lañ la jox faas te leen nëbbu ko bu ko feeñal bada yàlla di ko feeñal yàlla wan na ma ko loolu laa jël si waa jooju ñëwoon fekk Mouhamad al Hafiz mu wax ko loolu mooy Muxtaar ibnu Baabaana Mouhamad al Hafiz kooku la njëkk jox tariqa Tijaan kerek darsu suba yëpp jël tariqa bi amul benn néeg ci néegu dëkkam boobu kerek lu dul tariqa Tijaan dugg na fa مختار ابن بابان buubu نك nga xamne mo feñalon Sidi mohammed al hafiz bam ba Sidi Ahmad Tidiane defee mom lam def ak mom te nëbbuloo sëtam moy ahmed babana moy see feeñal mbuut mii ci khalif ahmed babana mo ne dafa gint ku ñuy wax al Amin mohammed al Amin wax naa ne doomu ahmed la ahmed di doomu bëddi mohammed al Amin mu ta gannar de ahmed babana gint mohammed al Amin ñëw keur mam khalif duggu ci néeg kenn ci soxnaam yi ku ñuy wax Fatima nee na ma yéemu ci yàlla naan waaw Mouhamadou Lamine lu mu war a ut si fii nee na am haatif bu wax ak moom ne ko hee du Mouhamadul Amine mi nga xam ci gànnaar de Mouhamadul Amine rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo seet si alxaaji Mouhamad Khalifa. moo ñëw lu ko tax a ñëw dafa nandal si alxaaji Mouhamad Khalifa sekkereb Seydi Ahmad Tidiane. la ilaha illallah. du Mouhamadul Amine bi nga xam déedéet sayidul wujud la sallallahu alayhi wa sallam. أتى إلى الحاج محمد ليسقيه أسرار سيدي أحمد التجاني محمد رسول الله ما خمون تمك مو نيو تي ملو محمد لمين مي سيرتي الحاج محمد خليفه بور لان ناندال كومبوتي سيد احمد التجاني رضي الله عنه لغي نك مو كونتيني دي واخ غينتي نيم ديمي نينا وهو رآه صلى الله عليه وسلم موم احمد بابان آه. gis na muhammadul Amin muy rasulillah sallallahu alayhi wasallam muy nandal alxaaji muhammad Khalifa labana am so ci yag mu ne aw wala sax ne sharaban abyad lu ñuy naan lu wex rek lo xamne kal laban kam so la mel lool la gis comme mew la mel xam nga am na sàngara yoo xam non lay mel day wax tar kii tudd na ci benn. ban la rakk la tudd rakk. rakk foo ko xamee. <laughs> bu ñu nekkee ci dañ ko soppoon lool. Uh-huh. waaye dafay ndox. si dañ ciy sotti ndox robinet. Uh-huh. bu loolu mooy ruqruqat gi. léegi mooy njar gi. rakk lañ koy tuddee. seetal loolu ruqruqat bi dinaa ni. léegi Ahmad Baba mu ne mu gis rasulillah yi di nandal alxaaji Mouhamad Khalifa lu mu koy nandal loo xam ne. meew la daal wala lu weexee ni meew. nee na bu rasulillahi tànqee ab kopp ab kaas jox alxaaji Mouhamed Khalifa mu naan alxaaji Mouhamed moom it tànq kaas jox rasulillahi mu naan kon kay xat udiirat kë suhaa bi yemiin yi nee na bu yonent bi tànqee ab kopp jox alxaaji Mouhamed alxaaji Mouhamed naan alxaaji Mouhamed moom it tànq benn jox yonent bi ifaadatika minka nee na ñu nekk ci loolu yonent bi ak alxaaji Mouhamed Khalifa ci machette bi di nandalante naan gu weex googu waaw naan gu weex googu lan la yonent bi bi muy rañaan dañ koo tànnloo woon ñetti naan wa awaanun thalathatun qad adathu labanun xaalisun wa xamrun wa maa u moom xalifa ne na ñetti ndabu lañ ko indil benn bi sàngara moo ci nekk benn bi ndox moo ci nekk benn bi laban moo ci nekk est-ce que soola kam soo yi yonent bi tànn soo ma naan ko ñu ne ko naan nga fitra soow nag signification bi ci waaye yàlla yi mm-hmm. mooy almaarifatu billah baydaa laddatin lisharibin mooy secret xam tey soo yëpp a bokk nuñ mel du ngeen doxa dox ba gis soo mel nu dul weex mm-hmm. bu nit keeg bu mbaam meeg bu yeneen ak yeneen a ci am mm-hmm. waaw soo moomu benn couleur boobu mu am du soppeeku jël lu ca rax rek nga xam ko lu ca rax rek nga xam ko loolu mooy fitara bindire bu sell bi yàlla bind nit exemple baa ngo soo moomu nga koy nampé ci pël bi di wax pël foo ko jàngee fekkee rek xam-xam bi mu ci soow mi soow moom nga nampé ci séeréer bi di wax séeréer léeg-léeg nga nampé ko ci sàcc bi di sàcc léeg-léeg nga nampé ci jigéen ju fegu ci sàmm boppam ja sa giiru doo mën mooy yàlla soo sekkere la nee na lim koy nàndal daal soow la niroog wala muy soow bu yonent bi tànkee ab kaas jox alxaaj Mahamad alxaaj Mahamad naan alxaaj Mahamad moom it tànk ab jox yonent bi yonent bi naan nee na ñu ci ab diir nag diir bu yàgg lii la wax xatta kaanat muddatan tawila du benn instant rek de naan bu yàgg a yàgg nee na mujj gi nag nit ñi yëg leen bu ko daw ñoom dem dem dem ca naan ga nee waqad diida annaasu an il ilayna waaye buñ buuree pour ñëw rek ñu dox seen digganteeg mënuñoo agsi mënuñoo yegg si fii kilo ngo léegi kon maanaam mashhad bii Ahmed Babana am di saytu Muxtaar Babana gis ko Mouhamadou Lamine ñu wan ko ko ci image Mouhamadou Lamine mu jàpp ne moom la ñu ne ko déedéet du Mouhamadou Lamine mi nga xamoon ci Shingiit waaye Mouhamadou Lamine sayidul wujud la lii moo ko tax a ñëw pour la nandal alxaaji Mouhamad asraaru sayid Ahmed Tidiane moo loolu laa doon wax naan sànq lu tax mu ne ci yonent bi la naanee direct puisque c'est simple maam Khalifa tudd na ko def na sayid Ahmed Tidiane yi secret la sa maam def ci yow. secret bobu mu ngi ci sama bir xol tay xolal wax joju khalifa nim jexé ci Cheikh Tidiane bay faté bop bu démé ba jëno janoog Seydi Ahmed Tidiane ne sa mbóot mujj nañ ko denc ci sama bir wa kan moko fa denc. da koo wax de fa sirruka indi fi damiri mukattam wa yukhfihi an dhikri lisan janaj sa mbóot yow Cheikh Tidiane denc nañ ko ci sama xol man alhaj mohammed Khalifa sama xol bi rek moko meuna denc nak waye làmmiñ ñu mënu ko tuddu mu kan moko fa denc ليسقيه أسرار سيدنا كن كم سخاني من شراب بكأس من مدام رقرقت بد دناني كأس سر شرابها في سرور وانبساط يا لهم وتهاني لكن نانا النجمة ويمون تلقى كاس بان تسمى لهم من ما نانا لهم لما وراء الأسقاب وأسقي صحابي حيث ما قتلوا موتا لو تقتي موم رقمنا يالا امول ويرنت قد اديرت xoolal gis nga imagination lu am solo la ci wëy xam nga mënoon na wax ne joxeef na ma kaas bi rek ci sama ndeyjoor waaye wëraleef na gars yi bu ñu waree naan lu ñuy wax na wër <laughs> ngeen na wër la ñuy wax ku ne kaasu na am tànk am tànk yaa ngi comprendre puisque kaas bi kaas bi nit moomu ko day wër da ngay naan jox keneen mu naan naan jox sa morom mu naan waaw ah, naanal ba màndi la wër nii la ko gars di waxee xool ko ci langage bi rek c'est la même chose kaas ba ñuy nandalee gars yi yàlla yi ci pays bi noonu la ci table lañ koy teg rek muy wër fi ñu toll nii ki ko war a jox du waaxu ñëw ba ci yow fekk fi nga toog déedéet kon du noobale dañ koy teg rek moom nag muy installé ci palaat bi ba palaat bi mat rek ñu wëral ko sa kaas bu yegsi buy tollook yow rek taxaw ak sa numéro doon naan mukk kaas bu ñu marqué wul sa numéro diwaan ku ne am nga tur am nga numéro numéro ni ngay gisee match de football ku ne porté numéro donte am nga tur waaye dañuy dañu def numéro 10 doo ko ñay teew diwaan yëpp ku nekk am nga chiffre bu bokkut ak sa morom lépp lu ñu lay sédd ci ay leer ci ay kaasu mbóot ci nàngam numéro boobu moo cay nekk affaire bi day wër rek waaye nag ki nga xam ne mooy laal bul bi affaire bi wër ba ku ne sa kaas yegg ci ci yow nee na kooku man la. loolu mooy maanaa wax maam xalif xat udirat kasuha bi yamini bay na xaw min te nee na loolu yàggul diiwaan ñu def premier jour mu dem diiwaan lañ ko jox fa suba moo ko bind lii moom leetar la moo ko bind wax dat ba bis ba ba mu ñu présenté ko diiwaan nu mu jox ko charte yi nee lu mel genre tablette dañ ko tegal ci kanamam charte yëpp lañ ko kii jox ko règle yi mu d' ñu jox ko poste bi la départ jëm kaw du waxoon du waxantu nii rek de déedéet xad udirat kësuha bi yamini bayna qawmin man saqaahum saqaani lii neex na ma bayna qawmin ma nekk ci diggante gaay yi yàlla yi kaas bi nekk ci sama loxo man saqaahum kan naan daal gaay yow saqaani xam nga wax bi dafa am chance mënoon na wax man saqaakum kon day mel ni gars yi dañoo naan ba pare moom mu doog a naan waaye man saqaahum ña fay nekkut ka leen nandal moo ma nandal te kaas baa ngi sama ndeyjoor kon yéen ku leen di nandal man <laughs> seetlu ko rek waxut man de man saqaahum ka nandal gaa ya dem ñoom Seydi Ahmad Tijaani ñoom Abdul Qadir Jeylaani ñoom Imaam Shadili ñoom Cheikh Omar gaa yooyu dem ka leen nandal saqaani mooma nandal man alxaaj Muhammad Xalifa mooy rasulillahi te kaas bi nag uddirat ka léegi mu ngi sama kon kum yéen moom a légui nak wax na naan gi num démé ku nan sàngara nak am lum def sa xol muné inna qalbi min lahi bi ishtiyaqi fi al lajj fi al-hayman inna qalbi nak sama qol man al-haj muhammad Khalifa min lahi bi ishtiyaqi ngir takku cofeel gi cofeel gi nek sama xol bi di tak comme safara motax sama xol bi fi dhiram mum ci lak fuma ma rek sama xol ba ngi lak lajja lourna mom sama xol bi moy continuer na في الهيماني تي ندلماني مرتبه لا تي موي بغ با خاميتو دارا دارا دارا ليغا بغ رك نغا خامي لودو ليغا بغ بو نلوكو اندي خامو لودو موي هيمان نينا تيوفيل جي تاك تي سما قلبي تي فاي موتاخ ليغي سما تيوفيل ييغنا سما بغ ليغي تي هيمان لا نيك موي گلمنا خاموتوما دا خاميتوما لودو مو صلى الله عليه ربي اني واقف بخضوع ليغي نا واخنا با بري مو دلو وات ربي يا سما بروم اني نك من الحاج محمد خليفه واقف اجي تخاو بخضوع عندك تروخ لنك منك راحتي تسمتين قجمن بوبو ما تخاوي دي لا نيان مبسوطه لنيو تالل وبناني سماي بارا ميت دما كو تالل لغي دال ماغي ني ياو يالا تالل نالا لوخ الله اكبر سما بروم نكو لو بك منك فال تحطني تيك ما ياو يالا سيكريزي ما لول موي بيك ما min adal mutasaddi tukkee ci lor aji gaarlu ji kii gaar si pour bëgg maa lor maag samay ñooñ yow yàlla sécuriser ma ba ko bu mën a yegg si ak ka xam moom balaa moslu day muslu xam nga taxaw ci buntu bi yàlla bi bàkk yonent bi bañ ubbil la bunt bi nga taxaw mënoon naa tudd yim so waaye dafa muslu parce que ku mucc mos ñu naan koy alxaj Mahamad ku mucc mos mhm. mucc rek moo mat a sonnee ku mucc rek mos mhm. mu ne yow yàlla fal tuxit nii nang ma peeg mooy mhm. sécuriser ma rek mu ngi bàyyi ko ci ixaata maanaam mu wër ma wër ma ba daj nga xam ne ku jógee fële indi soo musiba ne maa ngi ko jëmee ci alxaj Mahamad Xalifa ak ñooñam doo xam fooy jaar fekk day fekk yàlla miire na ma miine miine lañ koy wax loolu mooy fal tuxit nii ma yow yàlla sécuriser ma sécuriser bu daj min adal mutasaddi tukkee ci lorub aji gaarlu ji li xarim yi mm-hmm. ñeel sama kaaraange li ma làq li ma xaar li ma yilif ku fa bugg a ñëw pour lore yow yàlla doxal suñu diggante ko xaar ñu ci loolu nag kaaraange gii waxuma nga defal ma ko tey suba mu dog de wala faatu naa rek affaire yi léegi ñu ne ñag ba ñagoon alxaaj Muhammad bëtt na kum neex bëttal déedéet nee na maa atal malawaan yi fii guddeeg bëccëg gi ngi ñëw rek yow yàlla déema continuer di ma sécuriser maag samay ga moo tax kii malawaan yi maa atal malawaan yi yaa moo am ñu sonn lool ci sëriñ toog xalwa nu ne pour fay mbiram ma ne laay ñi yëguñ la xew maa atal malawaani feeg guddi bëccëg ñu ngi am rek yow yàlla sécuriser gii nga may sécuriser maak samay gaay mooy ñi nekk ci sama kaaraange bu mu dëñ xoolal nag ma xam bi mu toogoon bi muy ñaan yëpp moom sécurisé na waaye léegi nag sama baay dafa am lu mu waxoon dafa ne xalifa dafa ñaanoon sécurisé gu daj taalibe yeeg doom yi njaboot gi mu ne nag bu fekkee dañoo miire ba kenn mënta jógee fa la ñëw pour sàmm ñu ah. indi problème bi bu kenn ku nekk ah bu kenn ku nekk nekkoon fi nga war a nekk nga xam ne ñaan nangu na gis nga nag ñaanam gii nii dama dul bëgg dugg ci ay histoire ak ay détail waaye am na ci ñoo xam ne dañ koo teg bët. jëhratan jëhratan jug ak seen i pexe baatin ngembu seen i xalwakat def lu ne ñu puus puus ba sonn ñu mujj na leen da ngeen di sonn waaye du sotti te bu dakkut ngeen jugee fi yéen. ñu ba ma atal malawaani xoolal rek yéen ba ngeen dalee xam ba léegi ban at ngeen mos a dégg. at mu ko teru ba jeex te musiba dawul jëm kër maam xalifa nga ne tay la kër gi di tas ba ngeen xamee kër gi ba tey jii ban at ngeen mën a wax ne musiba xëyul rek <laughs> jur boo xam ne dañ ne tay tay rek yàlla doon xaare waaye dara ndam rek bu ñëw rek ndam lay jur loolu ñaanam la te da ko sonnee woon fal tuxit nii min adal mutasaddi yow yàlla peeg ma ci loru aji gaarlu ji li xari mi ñeel sama kaaraange ki garu ci sama karange pour lor doxal sama diggante ma atal malawani fi guddik bëccëg gi ngay ñëw wa min tawaariqi leylin fiihi wa fi an-nahari siwal waye nak nee doxal suñu digganteeg ñi lor ci waye ñi indi yiw yiw ñi indi xewal ñoo mom bu ñëwee entré <laughs> ñoo mom welcome ñaan gangu ko batay manam maanaam bi muslu di muslu rek léegi muslu na ci noon boobu kii ñëw ak matériel am kii ñëw ak pexeem pour lors ci dundam la ko gouvernement song gouvernement laa wax de du caaxaan de gouvernement bi ci dundam lañ ko song xeex ak ñoom xeex bu metti xoolal moom kenn cundum gouvernement di la sot favoriser ay nit ci kawam mu ne tekk rek ne lu waaye xëccoo bàyyee naa la ñu commencé di dugal ay ay pexe ci biir xam xam nga ne xeex ak gouvernement yombul. yombul de tey da ngay dégg gars yi ne la état kenn du ko dévier. waaw de dévier na ba mbir ma métti Serigne Soukeyrou ji jot ci. bind xasida bu yéeme. mat na ñaar fukki béy. ne ko bu ragal bul dellu gi naa yow yàlla nga ànd ak. tagg wu ne tagg na ko alxaaj Mouhamed ci xasida bu gouvernement bi mujj neexal si ko. baalu si ko xaq. gars yi mujj négocier si. coola jeex. ndax du dee moom mooy tey. tool yi ah moom bi bi yoon wi du du fay maanaam pour wax la ñaan gi du lu tax maanaam xam nga am na ku ma ko masalaat ci uda baaw yi daf ne ma liir naa littérature alxaaj Mouhamed Khalifa waaye dafa am lu ma seetlu xasidaam fu mu kii rek dana ñaan mucc ci noonu lan mooy problème bi dafa sonnoon ci noonu ndeysaan ñu mujj nag daf ko xarit waaw lu mu bëgg rek état bi mu ne leen bëgguma dara <laughs> mujj nañ koy di ko neexal rek lu ne ndeysaan lu ne ñu may ko lu ne ñu jox ko ci cadeau bañ demee ba yëf yi ba yëf yi tar ba tar fii am na fi ay xew-xew yu fi xew yoo xam ne sëñ bi du dara lu dul tooñ wa liyu guerre bi ñuy wax ak yooyu yëpp yëpp yu mel noonu ci la sabab ba woon rek acca nu ne nag dalee nañ ko ci kawam demoon nañ ba bugg saisir këram nangu ko xoolal lu gën a métti loolu bu jaar fam jaar ak yunentu jaar fam jaar ak Seydi Ahmed Tidiane gaa yee koy sot jël avocat fu ne ñu jëlee mu ne man yunentu ak Cheikh Tidiane ñooy sama avocat ah boobu boobu Senghor amagul. xam nga dañu foog ne tubaab yi dañoo bàyyi woon kenn. waaye mujj gi président de Gaulle moo mujj di neexal Alxaaji Mouhamed Xalifa. légion d'honneur bi mu ko doon jox. dañoo ne woon day ñëw Dakar jël si ko. mu ne leen dew ma fenn. président de Gaulle ne ñu yóbbul ko ko. fa mu jaar ak moom xam na ko. moo kii ku fi nekkaloon. maanaam affaire bi bàyyiwuñu woon kenn mun koy dañoo gën a bëri wante wax rek waaw ah, defuñ ko ndam jàll na jàll na rek taxul leen a jug ñu bàyyi mu seet waaye lim daj seen digganteeg moom te xoolal moom ci ci ci génération bu mujj bi la boobu ñoom Alaaji Abdoulaye ñoom Serigne Touba ñu def nañ génération boobu daanaka affaire yi ni mënoon ngaa wax ne xawoon naa xawoon naa tene tuuti waaye dara léegi nag xasida bi jeex mu ne rabbi yow sama borom inni naka man alxaaji muhammad aidun aji làqu laa aji wéeru laa bi shafii ci aji tinuma muy ki may ramm mooy yonent bi salaa sallam mu ne yow yàlla maa ngi ñaan ci yow nga musal ma waaye maa ngi làqu ci yonent yàlla muhammad gis nga turam ko tuddee shafii puisque moo lay tin mooy intermédiaire bi sa diggante ak sa borom ne yow yàlla man làqu naa ci intermédiaire bi ku làqu ci moom ci koo làq يلا اني نك من عائد اجي لا قل اجي وير لا بشفيعي ربنا اعاذ بي موي مسلنا لاقنا تي لامو تودي بيغا تي لولا لاي لاق من غامي اندي نك تي لولا لا بوغا موتي با تخ موي لاق تي انا اعوذ بالله تي يالا غاي لاق لوتا غاي لاق تي يالا من الشيطان لاي بور بوغا موتي الشيطان موم نك موني اني عائد يو يالا من سا جامبي دي الحاج محمد اجي لاق لا تلاق بشفيعي تي اجي تينوما موي مصطفى صلى الله عليه وسلم اجي رموما pour lan mu ne min min kuyuudin lil ida nga yow tukkiyee ci pexe yi lil ida ñeel noon yi kuyuud jamu kayit mooy pexe mm-hmm. min kuyuudin tukkiyee ci pexe yi nga xam ne lil ida ñeel na noon yi wa hawaani ak toroxalam ak doyadalam hmm. kuy jéem a ñëw pour doyadal ma hmm. kuy jéem a ñëw pour toroxal ak ku may pexeel ndax noonoo ma maa ngi làqu ci Moustapha sallallahu alayhi pour mucc ci ko hmm. acca nag wasalaatun jullit yàlla wasalaamun ak sëlmalam ala man yàlla na nekk ci waa ji nga xam ne tastafihi da nga ko tànn yow yàlla di wéy di ko tànn maa badaa feeg mu ngi feeñ alxamaraani jant beeg weer feeg jant beeg weer waa ngi fenk rek di yow yàlla sa sa julli ak sa sëlmal yàlla na sax dàkk ci moom xasida baa ngoog macha allah